dañuy déplacé wu tuuti monsieur bi ñu la nommé ministre des postes des des des télécommunications de la communication de télécommunications du numérique mois de septembre dama la woo man la man de kontaan naa ci sa nomination bi parce que yàgg nañu waxtaanee euh, secteur média surtout ci régulation bi ñu ci waroon apporter euh, def nga def nga un an euh, un mois ñu partager la subvention Euh, destiné à la à la à la, à euh, man de jàppoon naa ne yow ak sa retour euh, devoir de transparence bi ñu doon exiger ci ministère bi dina am en tant que avocat maanaam boo leen séddalee ba pare di ngeen publier la liste des bénéficiaires mu nekk une exigence de transparence boo xam ne le monde de la presse yàgg na ko exiger di ngeen ko def wala da da ngeen da ngeen pareegul wala. waaw même na sa question question dafa am solo trop parce que là on revient au ministère de la communication boo xoolee je suis là-bas depuis une année te macha allah de la presse des acteurs nous avons de, de, d'excellentes relations de discussion d'échange parce que c'est la c'est les échanges échange mooy permettre ñu mën a avancer sujets yu bëri parce que les sujets sont nombreux et aussi importants les uns que les autres donc gis naa ne vraiment déjà y a une bonne dynamique bi fi am fa amul parce que tey yaa ngi wax waxu waxu fonds d'appui bi euh, ñu faral di woowee aide à la presse tey jii ko benn coow parce que les critères qui sont mise en en, en place déjà d'abord c'est un c'est une décision collégiale ce n'est plus un ministre qui est dans son bureau qui fait ça qui fait qui fait qui joxe diw wàññil diw yokkal diw non ça c'est terminé ça c'est une commission composée d'acteurs c'est les acteurs eux-mêmes qui gèrent ce ce fonds et aussi j'interpelle aussi les organes de presse parce que aujourd'hui aussi état mënul parce que l'état quand même a dépensé près 1 milliard 800 pour la presse sénégalaise 1 milliard 800 millions non <laughs> <laughs> c'est juste juste le fonds est de 1 milliard 8 8 le fonds. quatrième pouvoir. waaw non. avec tout ce que nous faisons dans ce pays là vous vous gargarisez pour 1 milliard 800 millions. waaw même na. même na ah nu mu tudd des des miettes. waaw ah, d'accord des miettes yëkkati de la presse. waaw 600 millions la woon de. ah 600 millions la woon waaw d'accord ba tey. président Macky Sall indi ko ba 1 milliard pour 1 milliard 600 millions la woon may mu na. ah moo fi ah? amoon loo nga fekk loolu nga nga fi fekk. 600 millions nga fi fekk président Macky Sall yóbbu ko tey jii ba 1 milliard 8 te année année prochaine aussi dañuy gën a yokkaat donc loolu sant yàlla la parce que amu fi woon da ngay wax ni ngay critiquer nii amu fi woon mais <laughs> yaa ngi xeeb ni ne effectivement c'est des miettes oui c'est des miettes mais par contre mais mun na que que la, la la presse xam nga Sénégal tey la presse. mais mun na dafa am benn rigueur boo xamante ne aussi dañ ko lañ ko war a xam nga ma la wax tey jii la presse aujourd'hui doit être assainie mais mu ne tey l'État met de la met de millions et des millions dans la presse. millions et des millions oui un milliard huit. un milliard sans compter bien sûr que les autres euh, prestations vous recevez. de de l'État. <laughs> Ah, non attends attendez. yan prestations qu'on reçoit de l'État. Commercial. commercial. Oui, vous da soxla visibilité da di fay. waaw mais loolu expliqué. déedéet et encore sax l' état aurait prendre des cabinets étrangers wala genre yooyu. mais vous le faites non l' ne fait pas. mais monsieur ministre vous le faites non ne fait pas. Ah, je sais pas qui fait ça. pas. Euh, un journal étranger day ñëw fii collecter deux cent trois cent millions ah, li nga wax li nga wax li nga wax li nga wax nii amatu benn preuve. dañ leen di parrainer ñu ñëw fii dem ministre yow un franc CFA mosuma ko jox publicité. non attends attends te bu journal étranger bu fi France nu mu tudd bu fi euh, Jeune Afrique ñëwee. ci benn campagne. mu ne dafay def dossier sur le Sénégal dafay collecter deux cent millions. Ah da ngeen di décaisser amul daw ba sonn. waaw non même na xam nga li ngay wax nii. bu la fekk monsieur le ministre bu dugg ci débat boobu non xaaral dafa ndànk rek nañu wax nañuy wax. yow tey ji munoo ne yow vous recevez rien de rien l'état dans dans le de la communication nga ne donnaa donnaa la oui publicité la mais justement il de presse yi nga xamante ne ñu ngi gis seen bopp ci état bëri nañ fi kenn gisu fi boppam dafa nàkk peut la presse est en crise d'accord mun bu la neexee nga ne en crise mais en quoi il y a qui sont il y a qui sont moins en crise que d'autres du mu dugg détail yooyu maintenant maintenant li ngay wax ni par exemple naan bu bu yeneen presse étrangère attention chaque chaque chaque presse chaque média dafa am sa sa son son domaine de couverture boo soxlee visibilité internationale am na foo koy defee loolu c' est c' la plot c' est des de communication loolu ku nekk yaay xool sa bis fooy fooy def sa communication ak sa cible li ngay wut mais may may mun a munoo ne tey ji l' état a la presse sa est ça c' est pas exact au non loolu ban dignité la ñu la ëpp les médias sénégalais ba bu ñëwee Sénégal sur une semaine mu récolter deux cent millions pour des publi reportages bi yoo xam ne c'est bidon waaw mais même reportage yoo xam ne kenn ko lire loolu <laughs> peut que c'est un média international boo xam ne da ngeen koy utiliser parfois bu def lobbying parfois des journaux qui ne valent rien du tout ah, dañuy ñëw juste parce qu'ils ont les da ngay plaider wala non waaw ah, man loolu daf man loolu daf ma metti quoi et je vous le reproche à ah, chaque fois je le reproche à au au au je le reproche au gouvernement ma ne ma ne je le rien ñëw def en ñëw def lobbying ah bind ma Sall euh, le timonier ngeen di récolter deux cent millions dem seen yoon deux cent millions boobu boo leen ko jëloon parce que publicité mhm. pour sensibiliser les Sénégalais sur ce que fait le gouvernement sur des questions cruciales c'est le cas c'est le cas ah? kon boo leen ko doon def chaque trois mois non Maïmouna arrête ñun dinañu feex tuuti Maïmouna vous savez très bien que l'État boo dans les médias mais pour faire passer ce message xam nga loolu très bien. muy muy si média bi muy yeneen ak yeneen. boo leen jëlee campagne boo leen jëlee état da lay jël da lay yeral millions. 2 mhm. millions bi da daw 6 mois. parfois mhm. quand il y a remaniement ñëpp suñu biir yi day metti parce que si le ministre saute. si l' administration mais c' pas, payer. mais non euh, euh, du coude là. Ah. il me doit de l'argent ah, parce que Ablaye Sow euh, est a refusé de me payer ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen il me doit il a refusé de me payer ak ah, ñeneen ak ñeneen ak ñeneen man remaniement bi sama biir bi da doon metti ma ne ñun am nañ bor dans ces structures là bu ministre yi changé duñ la fay ah ba peut être loolu peut être c'est pas normal. Ah, c'est pas normal parce que y a la continuité y a la continuité de l'état buñ la yoralee xaalis am na benn femme bu ma yoral xaalis. <laughs> cette fois ci c'est le dernier avertissement dina xam boppam. ça fait 6 mois. mais même vous pouvez pas utiliser utiliser mais si je vais l'utiliser pour pour menacer les gens. mais si je vais l'utiliser pour faire recouvrement là. <laughs> non non non non <laughs> c'est contraire aux règles déontologiques du journalisme c'est contraire et devant le ministre en plus donc non. amuñu ah, ah, choix l'État ne paye pas dañ lay amal da ngay daw ba sonn même da ngay signer convention couverture tu fais toutes tes couvertures pour te faire payer les mais les DAGE font la loi da nga leen di woo duñu ah le ministre là parfois du du ñu lijjantee seen bopp ba pare pare nañ ci yow ça c'est un c'est un plaidoyer personnel je fais loolu c'est ce qu'on mm. donc quand vous dites que ñun on reçoit de la publicité de l'État mais mais mais je préfère travailler plutôt avec des privés ñu gaaw maa fay plutôt que les c'est c'est c'est c'est de l'État là. waaw non de façon y a toujours un système à améliorer ça c'est clair c'est tout ça amélioré donc changement de ministre ou pas c'est pas importe peu parce que de façon y a la continuité de l'État donc l'état mu jox mu jox leen marché yi moo gën ko jox marché yam jox ko à l'étranger yooyu donc c'est clair donc munoo ne munoo ne fii voilà euh, état ngi joxee euh, euh, fu nekk marché bi mais ñun voilà kenn ñu jox et puis bu c'est la vérité de marché public qui sont pas faciles. non nga loolu c'est non xaaral rek dinaa ci ñëw. waaw bëgg ma da bëgg ma teg sur la table. <laughs> la la la la la publicité la diffusion. Ah. elle est hors de contrôle du code des marchés. oui est-ce que c'est vrai voilà. Est elle est hors de donc le, le, le paiement ne devrait pas se se se se. bon après ni nga wax précédé cas mais man li may jooy loolu la TFM di jooy loolu la 2S loolu la. média yëpp di jooy ah mais sant parce que vraiment voilà. quand même on sait que ça se passe bien quand même. ça va waaw léegi. on on peut faire beaucoup plus. di nga génne di nga génne décret de répartition bi. ah mais c'est une commission qui s'occupe de ça. kañ nga koy génne. bu bu ñu paree. ils sont en de faire des virements d'ailleurs je crois war ngeen. kii sax vous en prenez l'engagement. Euh, mais c'est clair y a pas de souci. xam lan moo tax xam yaa ngi naan. y a pas de problème man man j'ai pas de problème de transparence ah. di nga ko génne j'ai pas de souci parce que aujourd'hui xam nga euh, euh, déjà yow est-ce que di nga tey ñu génne yow. li nga li nga li jot. parce que li ma jot jarul dara. waaw non exemple la joxe rek que parce que si mais dañ ko war a génne. ça pas si vous voulez ça si la commission si la commission si décide ainsi y a pas de une exigence du patronat de presse. non ils sont membres de la commission. waaw ils sont tous membres de la commission ñoom ñoo koy ñoom ñoo koy toppatoo bëggee publier génne ko dañ ko génne.